xam nga ñaari nit bu ñuy ànd di liggéey te du ñu wax dafay métti ça veut dire que suñu diggante ak service d'hygiène xam nga amul waxtaan ñoom du ñu déglu sax mais beneen problème bi ñuy déplorer mooy que yow bu ñu la fekkee ci sa boutique xam nga buñ ne buñ bu fekkee ne convoqué nañ la boo ñëwee la même personne bi la convoqué moom lay attendre donc la nga bañoon fële c'est obligatoire nga nangu ko fii bu fekkoon ne ñu la convoqué boo ñëwee chef bi moo lay entendre

Nous sommes service premiers partenaires sommes le premier partenaire commune Nous ñun Nous, parce que nous aussi ay sénégalais Nous sommes les premiers partenaires. set problème est souvent que nañu des commerçants yi sont ci les dates de pérition c'est écrit en français Nous sommes les xam da Nous sommes les rek te aussi ñetti affaire war na am mais ma yaakaaroon ne liggéey bu ne am na avertissement dikk ah lii de nangam nangam avertissement mais ñoom am na aussi euh, moratoire mais yooyu yëpp mais ñoom bu ñu ñëwee daal xam nga dañuy sanctionné buñ la boo nangul sanction bi ci bitig bi nangu sanction ba ca biir fële rek. ñun ñoo bokk ci les acteurs de développement ni ñëpp bëgg développer développé Kaolack noonu lañ bëgg a Kaolack ñun aussi par le commerce mais nag wax dëgg yàlla ku fi daanu ku fi daanu na nga yenn services yi ñoo la daane. pour être en règle pour pour être en règle nangu naa fépp foo dem y a des brebis galeuses dégg nga mënoo ne kenn mënul ne à 100 pour cent da nga en règle moo tax ñu créer benn groupe de workshop dégg nga pour sensibiliser ak formation dégg nga di waxtaan ak suñu nit dégg nga xool nan lay assainissement nan lay euh, cet bi demee nan la entretenir boutique yooyu yëpp ñu ngi koy def ci suñu biir te pour nekk en règle